asalaamaaleykum mbokk internet yi ñuy seetaan tey maa ngi am mbégte ci Yerim Post dalal koo xam ne nii ku ñu ràññee la ci géopolitique gu Sénégal ndax euh, kàllaamaam ak euh, mën naa wax fit li muy waxee li mu xalaat ci politique gu Sénégal euh, Barthélémy Dias maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Yerim di la gërëm di la sant ci invitation bi di la encourager tamit ci initiative bi. di am kontante tamit euh, la di dalal yéen waa Yërim euh, Post fii ci commune de Mermoz Sacré-Cœur. wax nga dëgg yàlla def na suñu bureau mi ngi sa commune. ci sa administré lañ bokk. Mm-hmm. léegi nag tey euh, moment bi ñu nekk di waxtaan ñetti fan moo des ci verdigu justice su Sénégal ci affaire Khalifa Sall. yow boo doon def pronostic tey ban verdict ngay xaar. bu may xaar mooy verdict buy Khalifa Sall di xaar mooy verdict bu askanu Sénégal di xaar d'abord procès bi du procès Khalifa Sall mais biiralaat bu wax ci ma ne procès bi mooy procès justice sénégalaise parce que la justice sénégalaise est malade ku ñëpp xam nañ ko du lu ñuy lam-lamee lu tax justice sénégalaise am feebar bu mu am euh, wax dëgg yàlla su ñuy waxante dëgg rek te yàlla tax wax dëgg yàlla jógewul ci askanu Sénégal mi ngi ci la classe politique sénégalaise et particulièrement mi ngi jógee ci le pouvoir parce que ñun suñuy fal ay njit dañ leen di fal ngir yaakaar ñom nak melni dafa am ben benn rawan bu nekk ci palais bi nga xam ne soo fa eggee rek daanaka ala kulli al nga ngay nagu wante lu xam luma gëm te waxon na ko ci suma procès man mi Barthélémy Diaz

def ko secteur général bi ñu créé tribunal de grande instance mu jox ko ko muy homme de confiance am donc man Malick Lamotte sama analyse li ma jox mooy ci nguur gi la bokk. Euh, dama ne lu tax procès boobu neex. may biiralaat wax ci du procès Khalifa Sall ci procès bi dafa am ay chef d'accusation yu ñu teg ci noonu Khalifa Sall. tey ñëpp nangu nañu que blanchiment d'argent kooku wax dëgg yàlla je crois que Malick Lamotte respecté na boppam respecté bu nga xam ne

wax na ni que lu Khalifa Sall def la woon fa woon ba woon na woon ñoom dañ koy biiralaat parce que loolu la askan wi di xaar ci ñoom te maire bu ñu jiital il faut ñu jox ko ay ay kom-kom yu nga xam ne ni dina ci mën a jàppale askanu Ndakaaru bu ci tegu tamit nee nañu euh, maire dafa am euh, escroquerie je crois que munoo taxaw bëgg nekk plus royaliste que le roi parce que ville de Dakar n'est na escroc escroqué wu leen mën naa continuer di lim tous les chefs mm. d'accusation. Vous wante mm. Mm. bu ma ci gën a neex chef d'accusation, accusation association de malfaiteurs Une association malfaiteurs a un petit dossier bi parce que le dossier Khalifa Sall dossier justice la mooy ñu dem au palais tëju ci benn bureau palais mu amoon sax ben ci seen mbokk di journaliste bu xarañ moom tamit nangu tamit liggéeyal askanam wax ko yëkkati baatam te amul ben kilifa bu nga xam tek na ci bat kilifa munoo mal kilifa bu président de la république wala procureur de la république wala ay magistrat te ñom duñ la plainte parce que ku fi mal magistrat di nga dégg outrage à magistrat ku fi mal président di nga dégg offense au chef de l'État te bu ci nekk ci ñom ñaar man tëdd naa ci kaso kon xam naa ci lu euh, xam ci dara kon ndaje bobu bir palais bobu amna

mu ne man mii sax maa ngi enregistré euh, euh, procès bi xam nga moom enregistré wul procès bi parce que moom du professeur de droit kon enregistré wul procès bi pour dem joxe ay cours enregistré wul procès bi su ñibbee këram jabaram di ko toggal reer mu ne ko ah kaay ñu déglu enregistrement bi ko doon enregistré parce que saay bu wàccee dafa am fu mu doon dem doon def ay compte rendu te tey le juge Marie Clément verdict bu muy joxe verdict boobu impact bu muy am hors du Sénégal moy ëpp impact bu muy am dans le Sénégal. motax ma la suma dama am xel bu dal. Malick Lamotte. juge bu nekkoon Kenya bu invalidé won ay résultats élection présidentielle ëpp ko dignité. juge yu nga xamné tay ñu ngi fi ak magistrat yi nga xamné ñu ngi fi tay biir Sénégal di xex pour que magistrature sénégalaise mëna mom bopam je pense que non la ci gis bopam té fu may daanelee mooy nangou nangu moom Malick Lamotte di juge. Sénégal transposé la directive de l'UMOA ci code de procédure pénale actuel, actuelle à l'article 155 su ma jumulee moom xam na ni que Khalifa Sall buñ koy woo police woo na avocat ñu lànk bañ ne El Hadj Diouf du dugg loolu kese kese rek ndog ndax loolu rek tey dossier bi dafa naroon vite te malik Lamotte moom xam na amoon na juge bu nekkoon Mbour particulièrement à Thiès il a invalidé un dossier seulement parce que le dossier euh, ça ne respectait pas la directive de l'UMOA par rapport à l'assistance euh, défense. voilà mais dossier bi lu ci doy il gêner Khalifa Sall yi fausse facture parce que nak fausse facture parce que bo facture diwliñ pour ne justifier par exemple si on leen pour faux et jade de faux qu'est-ce que c'est est-ce que tu avons ni non du qu'il hmm. parce que faux et usage de faux. Je hmm. jox ma jox exemple hmm. par exemple percepteur. Nous forme politique. du ce que nous avons. percepteur fonctionnaire wante ñoom acte 3 de la décentralisation bu muy dugg en vigueur man bokk naa ci député yu ko wote man maire la toog nañu bon man maire moo Sacré-Cœur toog n'a peut-être ñetti weer amoon budget parce que dañu bëggoon woteelloo beneen budget ci at bu nga xam ne ni nañ budget ba pare loolu musul am Sénégal Khalifa Sall ne mom ak ñu mu àndal ville de Dakar ñu ne ñoom wote wutuñu beneen budget nous sommes juróomi 5 mois ville de Dakar le budget juróomi ville de Dakar le budget Maintenant, maintenant nous ñuy expliquer Sénégalais que une institution de l'État bu le budget pendant juróomi mois, pendant juróomi mois, l'État a di fay salaire rek la caisse d'avance Si kon su pas affaire facture facture d'accord fausse facture vraie facture d'accord mais lu tax ngeen di en plus des salaires, les mêmes factures, les mêmes montants, pendant 5 mois villes ville à mon budget. La préfecture de Dakar. ci caisse d'avance bobo? dañ qui fonctionner perception dañ qui fonctionner commissariat central de Dakar qui ciy fonctionner sapeur pompier de Dakar dañ qui fonctionner moo tax xam nañ que il fallait ñu nous gagnions boobu. waaw lu tax yéen Où bu 30 ngeen di millions de xobet parce que ay politique mhm. maintenant nag lu tax waxtaan neex parce que rapport inspection générale d'État mooy soubassement au procédure bi. Mhm. waxul Khalifa Sall. lu mu wax dafa ne na ngeen les conditions de création et de fonctionnement de la caisse maanaam caisse bi nuñ ko créer ak nu muy fonctionner Wa mais yéen su ngeen bëggee xam caisse bi nuñ ko créer ak nu nu muy fonctionner yéen ci enquête ngeen lank bañ woo Mamadou Diop dem si yàlla ndeysaan yàlla nako ko xare àjjana ngeen lank bañ woo Pape Diop te dara jotu ko ñu dem ci instruction bi ci doyen des juges d'instruction mais ana kuy enquête wala kuy instruction à charge rek mais nit ki sooy wut dëgg da ngay instruire à charge et à décharge Khalifa Sall ne moom su sañoon ñu woo ñu nga xam ne ni ñoom ñoo créé caisse d'avance boobu ndax ñu mën a leeral doyen des juges d'instruction lu tax nous ñu dem ba créer caisse d'avance bu mel noonu ñu dem sax ba ci Abdoulaye Diop ancien ministre d'État ministre de l'économie et des finances au passage ñu ngi koy nuyu di ko ziar fi nekkoon le percepteur mais wax dëgg yàlla kenn du nekk dem si yàlla Mamadou Diop n'est pas un spécialiste de la décentralisation pour ne pas dire que c'est le précurseur de la décentralisation au Sénégal ku képp ku xam tey Abdoulaye Diop di nga nangu ne ni c'est un spécialiste des finances publiques ñu lank bañ leen woo Khalifa Sal créé wul caisse d'avance tey rapport inspection générale d'État daf leen ne nañu xoolaat nu ñu créé caisse d'avance bi ak nu ak ak ak nu muy fonctionner su ngeen doon wut dëgg te yàlla tax te ngeen bàyyi yëfu naa de côté di ngeen jéem instruire à charge à décharge woo ñu nga xam ne ni ñoom ñoo créé woon caisse d'avance bi ak tamit gestu tamit bépp autorité moo xam préfet moo xam les ministres de l'époque dont Souti Touré nga xam ils ont tous validé la procédure ci actualité bi am na benn magistrat Ibrahim Hamidou Dem bu démissionné noo jàngate démission parce que nag wax jim àndal dafa doy waar noo ko jàngate kooku yàlla na ko yàlla bindal tiyaaba kooku yàlla na ko yàlla fay taxawayam parce que Sénégal du mbiru homme politique rek wala mbiru yenn journalistes yi ku tignon, ci ñun fu nga nek yalla may la responsabilité ngay gis lu nga xam ni jëmarul dëkk bi kanam mhm. da nga ko nooru dénoncer diko xex motax je pense que mom lu mi wax le juge Ibrahim Dème je crois que mom la ñom Souleyman Teliko avec le bureau de l'UMS di wax motax ndaysan mo moo doon dégg suma nijaay euh, Moustapha Cissé Lo Don wax ci justice mais les magistrats font n'importe quoi il y a qu'une seule personne qui fait du n'importe quoi dans ce pays pour ne pas dire une personne qui est dans le mat avec le jeune m'en foutisme mooy Macky Sall mais parce que loolu moo am parce que tey justice sénégalaise Macky Sall bu muy jël engagement bañ bañ koy fal am na lu l'engagement, ci justice am na lu ci justice te du lii tey nag ngay un pouvoir mais est-ce que du juge ci boppam ni ko Ablaye ñoo nek jaam ci sen biir bop parce que Abdoulaye dem na ba ni dafa melni ci ñom la dal mais lolu dafa am. parce que la justice sénégalaise est indépendante. man amna lu nga xamné ni ci ak union des magistrats du Sénégal amna lu nga xamné ne duma ci ak union des magistrats du Sénégal. Man ngi leen di encourager di leen di féliciter di leen di jàppale. wante États-Unis wala France mais les juges de la Cour suprême président moy leen fan. wante Donald Trump.

yéen ngeen nekk frange boo xam ne ngeen def dissidence daal di génn PS tey buñ ko condamné lan mooy doon seen stratégie politique pour la parce que aussi après la vie va continuer. <laughs> bien sûr lan ngeen di def lan mooy doon seen stratégie. bon d' abord ñun d' abord defuñu dissidence. Mm-hmm. Cheikh Yérim ñun euh, dañu bañ a bokk ci section APR bu parti socialiste wante ba tey nangu nañu Ousmane Tanor Dieng mooy suñu kilifa moom lu tax bugul woote waxtaan parce que kat kat appui na ba yàgg na quatre appuis na yàgg na fu mu sax nee naa cinq appui na wante yàlla na ko yàlla jàppale ci lu muy wut bu ci tegu moy Khalifa Sall bu ko Macky Sall di dugal ci kasso bi xalaatuloon seconde Khalifa Sall dina falu député assemblée nationale té député assemblée nationale euh su ngeen di fàttaliku ñu ngi don wut ben liste unique ak wa PDS hum. yàlla dogal Antoul parce que nous, sommes ñuy pour Khalifa Sall ton député ñun ñoo ci on a prouvé avec cette immunité parlementaire que dossier bi ou dossier Khalifa Sall dossier bi ou dossier juridique euh, lit du reddition des comptes règlement de compte le, jaay le pour éliminer un adversaire politique parce que même le juge Malik Lamotte il respecte les décisions, mais Amoulon droit juger Khalifa Sall Amoulon droit juger Khalifa Sall Khalifa Sall est un député toujours qui bénéficie de son immunité parlementaire. Man, ma dernière cas de jurisprudence Assemblée nationale en termes de levée d'immunité parlementaire. Mhm. Député, man ne bañ pas taxaw ci euh, ci commission bi wante député bi nga xam lankul bañul ne man nangu naa ñëw taxaw jàkkaarloo ak commission bi. kon nak Khalifa Sall luma ci bëgg wax parce que am na ñu ne ñu ne dañuy sax Khalifa Sall. Malandé di ñaax nañu xalaat sen taxawaay amna na lu ñu dul nangu Khalifa Sall suñu doon jaye doole Khalifa Sall def matay. tey te dañ koy condamné su leen neexee wante dafa am fu mu leen bëgg wax ñaari baat man mi dafa amone procès buma amone ñu condamné ma ma appel ci appel bi su ma juumulee ci année 2016 man ma nekkoon numéro 400 413 xaw 416 yu mel man ma xam cour d'appel ñaata dossier la évacué par at at bu nekk ñaata dossier at bu nekk lu muy évacué xam naa ko ci suma calcul man ma xam ne ni kenn mënu ma 2016 kenn mënu ma 2017 te 2018 bi sax mënuñu ma àtte te pourtant ma loolu rek laa nam waaw maintenant man ñu jugé ma man ma appel cour d'appel yor suma dossier tribunal régional de Dakar suba ñu jaay doolee Khalifa Sall àtte ko condamné ko mu appel

xam nga lu tax sànq ma la doon wax ne ni gars yi dañuy gaaw a naagu. gis nga magistrat je crois que seen biir ñu ngi waxtaan. te am nañ intérêt juboo seen biir. parce que suñu jubóowulee seen biir bés bu mbedd bi di jóg seen kaw dinañ mere ku leen deful dara. tey dëkk bi ragal dëkku fi. dëkk bi ragal yeewu fi. am na lu ngeen xam ne kenn du ko nangu ñu ngi toog ne pat. gis ngeen am na benn wax bu ma doon wax ndeysaan ay kilifa woo ma ne ma Barthélemy daal dañu bëggoon nga bàyyi wax ci parce que lii mel nii benn góom bu ñu fajoon nga xosiwaat góom bi ma ne ko déet gaa yi dañuy gaaw naagu foog ñu wax leen ndax ñu delluwaat ñu dellu siwaat seen xel yi nguur amoon na fi ñuy def lu leen neex parce que am na man parti socialiste laa bokk wante socialiste yi bu ñuy nekk ci pouvoir ci mbiru élection yi tamit des fois da doon am na muy demee mm. mais Ablaye Wade

ak seen naqar lu ma bëgg a wax par loolu waxuma damay menacer ay juge dama ne na nit ñi ñite dëkk bi santul Masamba dëkk bi santul ma Mademba xalifa Sall dafa am ay mbokk xalifa Sall yor ay soppe xalifa Sall yor ay dëkkandoor di gor di jullit am tarixa bu mu gëm sàccul fenul jaayul suuf dëppul kees am na lu ngeen xam ne ni kenn du ko nangu magistrat nag bu nga xam ne ni foog nga leen ni dañ lay jox terrain jox la enveloppe ne la yow la yow la bien nga ni demal acca bismillah wante lenn rek laa lay wax yow yeewoo ci palais soo doom yi suñ jàngee école amuñu GIGN sa jabar su demee marché amul bit noo ko déggee nag jàppee noonu loolu leer na mais boo xoolee ba ci biir Barthélemy euh, procès bi dafa am man sama gis-gis lu bari luñ ci war a jàngee Euh, première fois bi ñu ci war a ay sondage yoo xamni amna sax ben parti presse bu ko génne amna lu ci Dakar ak ci génne euh, wané won ni dans tous les cas de figure Khalifa Sall bu bokon ci élection bi deuxième tour fay am. parce que bo xolé sax euh, dans une perspective de deuxième tour sondage yëpp dafa wane ni Khalifa Sall bu demoon tey ak Macky Sall deuxième tour moom moy gagné. Euh, analyste politique yu bari japp ni sondage yooyu moo Khalifa Sall prison est-ce que légui au-delà de tout est-ce qu'on ne doit pas s'interroger sur l'état global de notre démocratie au fait parce que problème bi bi affaire bi di poser moy lolu est-ce que dans ce pays-là nit avons le droit légitimement am ambition wa wala déet loolu vraiment ñu xalaat ci élever débat bi un peu quoi. man dama question bobu mm. ñu bañ ci tuddu ay tour parce que suñ tuddee ay tour, ci suma xalaat du garate bokkuma foofu te jàppalewu ma leen bu man tamit Karim dafa nar bokk parce que lu tax ma wax ko noonu dama ne kenn amul droit Sénégal ne da ngay poñe démocratie wala da ngay galgal démocratie du question de ay nit wante Karim su ci bokkoon second tour dina am te Macky Sall du ko fekkee te xam na ko te bokk na ci lu tax mu bëgg tamit téye doomu Ablaye Wade bitim réew bokk na ci tamit lu tax mu bëgg a xalifa Khalifa ci kaso bi wante xam nga am na lu xewoon Gambie ndeysaan yaa jàmme jël ñëpp te ci kaso bi fàtte nag yàlla am na plangam yàlla ne cappax genn benn waay ñu koy woy Adama Barrow waa ji taxaw ne ko màngook Macky Sall lenn rek moo ko mën a garantir loo second mandat mu jël 15 millions sénégalais yëpp te ñëpp ci kaso bi parce que tey Khalifa Sall suñ ko doon jaay doole sax dañ ci ko ci kaso bi rab ko ci kaso bi kenn ci njabootu Khalifa Sall dina teg candidature xalifa Sall te samp bosam moonte candidature Khalifa Sall la suñu noon dugal ñëpp ci ñun ci suñu njaboot dina am kenn ku yëkkati loxo. donc si je comprends si je comprends li ma bëgg a mooy. donc yéen nekk leen ci dynamique gu soutenir ku mel ni Idrissa Seck c'est-à-dire tey bu xalifa Sall demoon ba ñu condamné ko définitivement. yéen da ngeen am candidat seen candidat bopp. kooku moom du lu ñuy laam-laame. loolu wax nañ ko parce que Khalifa du caisse d'avance ko dugal ci kaso bi man Barthélémy Diaz du nit bu ñàkk bakkanam ci buntu mairie bi moo tax ñu doon ma doon ñu ma doon àtte c'est parce que man Barthélémy Diaz dama ne PS dafa na am candidat te suma candidat man xalifa Sall la ñu jaay ma doole te ñoom ñooñu bu ñu may def lu ñu may def ci buntu mairie bi ñoom lépp la ñu fekkee jàppale ma. te ñoom ñoo ma dugal liste député té ci kasso bi la nekkoon jour bu jour bu may yégal né ni que ngi ci liste bi ci kasso bi la nekkoon di football petit camp ak gaay mais petit camp sax duma sax duma ko sax fàttaliku euh duma ko sax faté ma ngi petit camp ma meroon parce que dama daanu woon faxastaru daanu garde bi ñew ne ma may yow radio bi ngi nenegee dañ la investir xana yow da nga am rak mané ko dét gaay jumu ñu man la xam dañ may delloo njukkal rek man laajuma dara ñom ñoo duggal ma falu nek député ñu jël ma duggal ma biir bureau assemblée nationale jox ma titre ak avantage ministre ma dem ba ci biir man toñuma ma leen xasuma leen saaguma leen damaa ne rek dëkk bu nga xamni fi ni fii laa juddoo fii laa yaroo jàpp naa ne ni que il mérite mieux que ça te su yaakaar Khalifa Sall ñu woo tribunal jaay ma doole yalla def ci sutura Khalifa Sall kess avance dugalu ko lu ko dafa nek mom jamais jamais jamais ñetti on renoncera à notre ambition. mais léegi candidature Bob ci est-ce que du moo def cette division entre yow ak Bamba Fall au fait c'est-à-dire Bamba Fall euh, man j'ai du mal à lire jom mais je sais que daal ku jege nguur en même temps nee na ci Khalifa Sall bokk mais est-ce que wuute gis-gis boobu ci seen diggante maanaam yow nga bëgg nekk candidat vous mu bëgg a négocier nguur gi moo tax ngeen xaw ci gis-gis. non pas du tout je crois que moom lu ma wax Sénégal ñëpp a ko dégg euh, Bamba Fall suma doomu ndey la suma xarit la. wante bokkuñu gis-gis waaw mais est-ce que non parce que xam nga lan mooy sama problème la koy wax waaw bokkuñu gis-gis. parce que Bamba nee na moom dina def kéemte laay kàttanam pour xalifa Sall génn ci kaso bi kon man maa ngi ci jàppale di ko encouragé wante Khalifa Sall su bëgguloon dugg ci kaso bi du dugg ci kaso bi parce que a am na lu ma ci xam.

ci biir kaso bi semaine parce que amna ay nit ñu nga xam nañ ci kasso bi waxtaan ak Khalifa, jamais jamais jamais on renoncera à cette ambition renoncer à cette ambition c'est trahir le socialisme sénégalais ñun momek am tay lepp am nous suñu fait, ñaan euh, PS nous jox socialisme ñu jox donc nous renoncer ci idéologie bobu Tay Idrissa Seck suñu candidat wala Malik Gakou suñu candidat wala Karim Wade suñu candidat ce n'est pas la question la question c'est que nous sommes libéraux Gakou su il est socialiste comme ñun mm-hmm. mais il a son parti politique Nous avons créé un parti politique parce que avons une histoire de l'AFP. Nous, avons créé un ñu parce que nous avons une histoire au parti socialiste Paye, si Khalifa Sall est maintenu en prison, nous allons nous battre pour qu'il soit candidat en prison, comme ce fut le cas ci affaire législative bi. su fal député ci biir. su mënul candidat yow yaay candidat. waxuma man maay nek candidat. Mhm. wante suñu njaboot ñun waa PS. Mhm. dina am candidat. man suñu ma dugalee ci kaso bi ci njaboot bi keneen dina yëkkati loxoom suñu doon dugal ñëpp ci kasso bi xamna naa Macky Sall dina jaaxle wante dina am ben xalé bu ndaw buy génne ni boppam rek ne Okay. C'est le principe. C'est le principe et c'est le principe. te bés bu ñu delloo ginnaaw rek kon gaay ñoo am ndam suñu côté duñ ko nangu parce que luñu gaay jaay lolu dafa jéggi dayo ci démocratie bu gëm bopam. Légui Bart bu fekkee ni Khalifa Sall dañ ko condamné pour détournement de deniers public parce que c'est un délit lourd hein parce que c'est au minimum 5 ans 5 ans et puis c'est un délit boo xam ne euh,

bep policier wala bep gendarme buy top ministre wala député té mo am immunité té nga jalgati immunité nga xol lan la la euh, wax ci loolu. Hmm. yàkkamtiwuñu leen te allah kulli aal dinañ fayu. parce que il faut que mu dugg ci bop nit ñi. parce que il ne faut plus jamais au Sénégal suba Khalifa Sall nek fi président. Hmm. mais parce que diw moom. neexuma rek damay koy jël dama ko duggal ci kaso du fi am Sénégal kasso dafa am ñuko mom hmm. dafa am ñuko mom dafa am ñuko mom moom. wante mëno gis ñitt parce que dafa am ambition politique mais lu tax tey Macky Sall di dougal ni ci kasso Macky Sall xamul kasso mais dina ko xami nak mm-hmm. c'est pas c'est pas bu mu mm-hmm. ko yakamti dina ko xami euh, ñun xam nañu ay garde à vue man garde à vue gendarmerie police euh, rebeus camp pénal Tambacounda j'ai fait le tour xam naa luy kasso du ma kasso duma mm-hmm. du ma parce que dama xam kasso wante nak ëllëg bu fi ben kilifa diiné woté jamm bu fi ben kilifa aada woté jamm bu fi. kenn duggal làmmiñam ci lu nga xam ne ni yorom newu ci parce que bu ñu doon jaay ni ñuy doole mhm. je pense que am na ñu yëngatu wante am na ñu nga xam ne ni ils n'ont pas Sénégal day dëkk boo xam ne nii kenn du àtte daal ñi war a wax ñëpp ku nekk yaa ngi gérer say intérêt loolu mooy Sénégal mhm. mais pour jeexal rek ci xalifa Sall yow xam nga kaso bu baax kaso man damaa jàpp ne am na lu bari lu muy defar ci nit te gis naa ne yaa ngi koy gis pour yow lan la kasso bi soppi ci mom Khalifa Sall su génnee dina xamé dina ragné kooku amna. na foo mëna mën a yem ci wax ci te yalla may na ko xel ma sha allah te su génnee dina xamé dina ragné ci njabootam dina xamé dina ragné ci askan wi dina xamé dina ragné ci côté bu nek ci kilifa diine dina xamé dina ragné ci magistrature bi mm-hmm ci administration bi parce que tay su may tay yenn yenn nit yu nga xam ce sont eux les hommes de pouvoir ils me font rire ku les premiers premier ministre du ma sore ci wax ci Khalifa xamna man xamna mom tamit xam parce que mom say buy gis say bu doon gis Khalifa Sall da ko doon gëmloo ni que voilà ay waay lañu. <laughs> premier ministre bi. premier ministre bi. Mohamed Diop je ne dirais pas le premier ministre je dirais le premier des ministres. Ah. parce que moom su demee ba wax lu mu wax ci Thierno Alassane Sall. moo tax ma ne ndeysaan dëkk bu nga xam ne ñu ko ilif amatuñu kàddu loolu dafa jéggi dayo kon jon daan ñëw mairie Dakar. kan noonu John premier ministre. waxuma da doon ñëw mairie de Dakar wala daan ñëw kër Khalifa daan toog ci salle d'attente waxuma da doon ñëw mairie de Dakar wante xam nga gaañ yi rek xam nga gars yi ñoom ay xam nga gars yi ñoom dañuy football quoi wante bii moom du petit camp bii grand camp la quoi. jeex bi moom ku amul compétition du dem. na léegi actualité politique bi ñu ngi ci parrainage yi. président di waaj soppi constitution bi pour dugal ci parrainage am nag opposition bi ñu bari ñu tiit nii parrainage bi ak condition yi ci nekk nit mën na jël ay signature réeral ko après le président Youssou Ndouré la maanaam ku président bëggul mu nekk candidat mën na laa éliminer yow lan nga xalaat ci parrainage yi. parrainage je pense que d'abord le débat il est mal posé le parrainage il est anticonstitutionnel. Mm-hmm constitution du Sénégal mooy suñu alxuraan mooy suñu Bible. Ce mu wax waxul waxu parrainage dafa les partis politiques et les coalitions de partis politiques peuvent concourir au suffrage. mais justement ils veulent. changer constitution bi lañ bëgg changer. pour dugal parrainage non mënuñu ko mënuñu ko changer. waaw mënuñu ko changer. parti politique suñu demee ba ne parti politique may nañ nit sañ-sañ mu mën a créer parti politique rek wax bi Youssou Ndour, Keba Kaint ak ñeneen yi ñooñu ay candidature indépendante la woon kooku d' accord na parce que tamit mënuñu toog tey Barthélémy Dias Diop ñu ne ah <laughs> gars yi dañuy tëgg maintenant ay combat 200 millions Barthélémy Dias Diop taxaw fa na ngeen na ngeen ma jox gris bordeaux man gris bordeaux lay wax parce que man man boy dakar la man écurie face lay jàppale man xam nga xaj gris bordeaux xajul ci man parce que damaa dégg rek cachet 200 millions mais na ngeen ma indil Gris Bordeaux mm-hmm. ma ko def bon kon su ñu demee ba langue politique bi ku jóg fëye rek bëgg ñu xam ko wala ku jóg fëye rek mm, am xaalis nam ma daal dépenser xaalis ne damay dem dugg ci langue politique bi te da nga ñuy décrédibiliser yow Cheikh Yérim journaliste nga mm-hmm. sénégalais yi la mais parce que tu un parcours tu es un ancien de Jeune Afrique Tu as am jaar on te concède que lui, moi, c'est liggéey man Barthélémy Dias suba su ma jógoon tey bëgg a liggéey de bi du suma liggéey aw ma droit liggéey liggéey bi moo tax ma parrainage bi ça doit pas concerner les partis politiques parce que la constitution du Sénégal leur a déjà conféré leurs droits et le président de la République n'est pas au-dessus de la constitution maintenant parrainage pour les candidatures indépendantes mais nous, waxtaane mais waxtaan amul ci de parce que ku nga xam ne ni moom moo noo nekk à la base de la discussion du dialogue bëggul waxtaan parce que moom dafa am lu mu namm lu mu namm mooy mais sàcc élection yi mm-hmm. je crois que ku ku ci am xel ñaar mm-hmm. soo demee ba dégg son ministre de l'intérieur di wax ah xanaa yow nga nekk peut-être nit bu gëm leneen mm-hmm. wante soo gëmee yàlla di nga xam ne ni loolu leer na ci boppu ñëpp mais jàpp nga ne Aly Ngouille Ndiaye c'est tenable mu yor élection yi fii ba président man gëw ma loolu c'est pas admissible man li ma gën mooy Macky Sall day xaar que les conditions de dialogue se créent pour que mu concéder loolu en contrepartie d'autres choses mais man gëm naa ne Aliou Ndiaye day dem en tout cas ci volet élection yi. yow wala man nga gëm wala gëm gëm nga le contraire yow. bon d'abord Aliou Ndiaye je pense que tay ci gaañ tay peut-être mom la ci Macky Sall gën a wóolu pour sàcc élection yi. Mhm. parce que mom bëss bu Macky Dano je pense que tëddam kasso dina gëna metti métti bésu Macky wala ñom ñoy bok seen tëdd kaso moom xam na may wax lu may wax. Mhm. maa ngi koy nuyoo passage nag. Mm-hmm. di ko ñaanal yàlla jàppale ko parce que fu ñu jëm ndox amu fa. donc il faut mu leer non non kooku yéen il faut mu leer fu ñu jëm ndox amu fa. Mm-hmm. kooku baxte may wax ak yéen nag mm-hmm. amul foofu ndox amu fa daf leen leen neex rek. mais suñ ci eggee heure chifaay jot na ngeen ànd ak dignité na ngeen ànd ak gëm yàlla te ngeen xam ne loolu mooy seen destin. baax affaire carte yi. parce que élection yi on a boo dire mais carte yi. ba léegi am sénégalais yu jotul seen carte pour yow lan mooy solution pour carte parce que il faut carte yi nit ñi jot ko aussi pour mon voter mais carte yi solution carte ben benn solution rek moo am mooy lu PDS voter. nii mooy mbedd bi rek mbedd bi nag c'est que il faut que sénégalais comprendre c'est pas parce que waa PDS ñoo woote mbedd bi rek ñu ñoom ñu dem man saay bu PDS woote damay dem parce que man wuy jiwuma PDS man démocratie là, oui ji waaw parce que du deug du yoon nga juddoo ci dëkk yaro ci dëkk deuk ci deuk ñu ne la yow doo wote loolu amul fenn jël sa 52 milliards te bu ñuy jël 52 milliards yi waxuñu dañuy wot dañ lay defaral carte d'identité képp wala carte d'électeur képp dañ la né dañ lay defaral une nouvelle carte d'identité et une nouvelle carte d'électeur tey waxu carte bi dem ba dépasser leen ñu ne boo maintenant carte yi dañ génnee carte yi wante da ngay njëkk ñëw nga bindu pour am carte d'identité loolu fan la da ngay une carte d'identité avez carte cette personne n'est pas inscrite sur le fichier électoral maintenant maintenant maintenant fichier électoral fichier électoral carte maintenant une carte d'identité mais ana yebel avez fan la am pour décourager les ñi pour que les gens renoncent à leur droit de vote euh, Macky Sall bëggul dégg wante ala kulli àll dina dégg malheureusement luma ci metti rek moy dina ñaaw lool dina ñaaw lool lool lool lool lool. mais peut-être parce que Macky Sall fu ma ko yaakaaree ma wax police la faone, fa woon ba woon na woon moo fi nekkoon jamono Abdou Diouf Abdou Diouf dem na gendarmerie mo fi nekkoon jamono Abdou Diouf dem nañu tamit euh, Abdou Diouf dem na même police ak même gendarmerie mo fi nekkoon jamono Ablaye wad Ablaye wad dem na. Macky Sall, s'il pense une minute qu'il il va trouver des officiers de la gendarmerie ou de la police qui vont ouvrir le feu sur le peuple sénégalais, il se met le doigt dans l'œil. Donc, je pense que Macky Sall, a un ay mbokk na mbokk mi wax ak pour jeexal entretien bi baat damay lay laaj nga un appel bu njëkk bi ci justice la jëm ci top, ci Ousmane Tanor Dieng la jëm ci top, ci Macky Sall walla bëggee ñu jeexale ko entretien si justice B, le particulièrement moi, ils n'ont qu'à dire le droit dire le droit c'est libérer Khalifa Sall et ses co-détenus ils n'ont qu'à rendre justice au peuple sénégalais parce que la justice est rendue au nom du peuple ils n'ont qu'à rendre justice au peuple de Dakar et ils n'ont qu'à rendre justice à Khalifa Sall te c'est de donner un non-lieu à Khalifa Sall il n'y a pas autre chose. Nous, tous, on a suivi le procès. Je pense que, vous mettez dans le côté justice, oui, mais je pense que nous Souleymane Teliko, président UMS, Djotawak, Sénégal, nous avons des petits Andes. Le juge Ibrahim Adem, je crois que tu as un Sénégalais beaucoup encouragé wul ci quant à Macky Sall lu ma ko waxoon moom lay Macky ñi

ana jiboka ana Mamadou Diop de àla kulli àll mooy damal rek maa ngi ñëw kon nag nañu ànd ak xel rek ànd ak dal boo Barth maa ngi lay sant di la gërëm vraiment ci ñëw bi nga ñëw Yerim Post euh, yow doon nga koo xam ni ku ma ku may suivre la ci champ politique sénégalais xam naa dinañ seqaat yeneen ak yeneen waxtaan parce que Yerim Post li ñu ci jublu rek mooy fépp foo mën nekk ci Sénégal ak foo mën a bokk ñu toog waxtaan ak yow ndax